xëyati nga xanaa waali nga jëlal tey. billaay moom laay waxalati waali sekk bañu ma ci ba nga woo ma man wali taa bañu ma ci ba nga woo ma yow daam seen yow laay wax sama yóbbante nag ma ko joxe waali sekk saa bu ma xëy di vidéo suñu waa xëy ngi nii ñoom ñëpp jéppi nañ ma damay xëy di vidéo rek ba ma demee vidéo ma tey woo ma dinaa <laughs> xaru man sekk yàlla moom moom dinaa xaru dama naa bëgg sama xol